galasi sar juróom benn mbokk yi ku ñu fekk muy def lu yàlla bëggul yéen ñi topp xelum yàlla na ngeen ko jubbante ak xol bu lawet waaye nanga sàmm sa bopp ngir bàkkaar bañ laa fiir yow itam jàppalante leen noonu dingeen sàmm yoon wi kirist tëral ndax kuy naagu te fekk doo dara dangay nax sa bopp na ku nekk seetlu ni muy beye sa sàmm bu ko defee dina mën a naw boppam tey bañ di diirante mbagg ak ñi ci des ndaxte ku ci nekk danga war a yenu sab yen kuy jàng kàddug yàlla war naa sedd ki koy jàngal ci alalam jépp bu leen ci dara nax kenn du fontoo yàlla ndaxte lu waay ji moom ngay góob ku ji ngir sa nafsu dinga góob li sa nafsu meññ maanaam ak yàqute waaye ku ji lu soloo ak xelum yàlla li xel mi meññ ngay góob maanaam dund gu dul jeex bu nu tàyyi ci def lu baax ndaxte bu nu ci sawaree bu waxtu wi jotee dinañu jariñu noonu fii ak nu koy man na nanuy defal ñépp lu baax rawatina nag suñu mbokk yi gëm seet araf yu mag yii ma leen bind ci sama loxo bopp ñii ngi sal ci seen yaram ñoo ñoo bëgg ngeen xaraf ngir ragal daj fitna ci yégle deewu kirist ca bant ba kuréel gi faydaal xaraf ñoom ci seen bopp sax duñu topp yoon wi dañoo bëgg ngeen xaraf ba nu mën a bàkku ci seen yaram yéen man ci sama wàllu bopp duma bàkku mukk su dul ci deewu sunu boroom yéesu kirist ba nu ko daaje ca bant ba dee moo tax ma mel ni ku dee ci yëfi àddina yëfi àddina dee ci man xaraf ak bañ a xaraf dara amu ci solo li am solo mooy nekk mbindeef mu bees ñiy topp ndigal lii nag ne yàlla wàcce jàmm ak yërmande ci ñoom ak ci israyelu yàlla léegi nag bu ma kenn la jëlati ndaxte yor naa ci sama yaram ay lëgët yuy màndargaal ne jaamu yeesu laa mbokk yi na yiwu yéesu Kirist sunu boroom ànd ak seen xel amiin